gannaaw bi nu santee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa di sant a Cheikhul Xadim noo ngi nuyu mbokk yi ñu seetaan yëpp mbaa ñu di déglu di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi nga xam ne noo ngi ci biiram di rajabul fard bokk ci al ashhurul xurum làmboo ay ngëneel yu màgg yu tedd yoo xam ne lislaam bépp la soxal e, rawatina nag bis bi nuy waajal ne ci sunu kanam di fukkeel ñaar fukkeel ba ak juróom-ñaar muy kasu rajabin di guddi gi nga xam ne ci la sunu borom rañaane woon yonent bi sallallahu alayhi wa mu fekk ko fam ko fekk mu jox ko fa yu baree baree bari te bokk ci yooyee li ci solo muy julli juróom loolu de loo xam ne lislaam yëpp ñoo ko bokk waaye nun it ñu amaat suñu jagleek bopp muy feeñ gi nga xam ne ci la si Amadou Fadil feeñ jamono ba tax mu daa wax ne yent bi dana lay dana lay mën a cëpp lay yi ku jóge ci suuf jëm kaw lay doon cëpp nag ku jóge ci kaw ñëw ci suuf la eh, mel ni jotaay biit loola lay màndargaal bokk ci waxtaay yi ñuy jotaay yi ñuy waajale bis bi ci sunu kanam muy bisu Kazu Rajab ñu ciy ndokkeel bu baax a baax Cheikh Sidi Muxtaar mi nga xam ne moo ci bopp yoon yëpp ñaan sunu borom mu dolli ko fee yàggal dolli ko wér ko ma àggali moo dem ay yéeneem te lislaam ak ci yoon wi ndokkeel itam suñu abul baraka mi nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot Cheikh du Fadal gépp ñaan ko mu yàgg fi lool te naa la naalam ak yéeneem ci kër Sëñ Abdou Fadal lépp mu àggale ko ànd ko ki rakkam rawatina Sëñ Abdou Fata jëw nañu ñi nga xam ne ci ëpp ëttam la ñu nekk nii di ci amale jotaay bi waaye nag Sëñ Abdou Badu yi ak ñi nga xam ne ñoom la seqal mbir mi yëpp nga xam ne ñooy waajal jotaay yi ngir ngir waajale ko bis ba ngir bëgg eh, waajale ko ci xam-xam ak ci ay tomb yaatu ngir mu mën a jariñ mboolem xeet wi tey jii nag jotaay bi ñu tànn ci benn tomb parce que yéen waxtaane muy al irada sadiqa al irada mooy ak taalibe gu dëgg suñ ko waxtaanee baagal nag jàngat nan la ko sëriñ Fàllu eh, jëmbale moom taalibe googu al iraada baat bi baatu arab la eh, ñu ngi jóge ci araada yuridu iraadatan mooy ak bëgg baat bi ci loxo li mu tekk mooy ko am lu mu bëgg li nga bëgg nag mën naa doon lu ne waaye day mel ni maanaam baat bi ci luxa du sore ak maanaam istilaahi mi ndax bu dee ci istilaahi bi rek mooy ki bëgg yàlla ki namm yàlla ki yàlla rek ko tax a jóg ci léppam waaye mu nekk buñ ñu tënk rekk mooy yoon wi nga xam ne moom la Serigne Touba woote woon ngir yeesal ci lislaam yeesal ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa ndax mooy li ko taxoon a jóg ngir fi mu fekkoon jamono ci ay yàqu-yàqu ci ay aada yoo xam ne yu safaanoo ak lislaam la ci ay pas-pas yu yolom ay yitte yu suufe ak jikko yàqu mu ñëw na ngir indi dundalaat la nga xam ne maam la sallallahu indi woon muy lislaam ji ko sun borom joxoon tam leer la ko sunnaam di sàggane ko bala ca ëpp sànku mu ñëw ngir ngir dundalaat loolu lil Mustafa nawaytumaa yu jaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu dama ñëw ngir fas yéene yeesal diinay Mustafa sallallahu alayhi wa sallam defe ko ca darajaam diinun siwa islaamihi laa yuhmadu inda al wa bihi nu jaddidu jépp diine judul diine lislaam du diine fa borom diine lislaam jooju na moom laa yasal si nadaafatuhu kulli min allaxwi taharat wa sunnatahu insha rabbi ubaynu kon leeral nag fu bari waaye xam le li ko tax di yaasal mooy lim fi fekk na ko wa wa innama alayhi almuqtafa li kasrati jaxli ala naasix tafa wa tabi ala siratu sahaba ne ma ñëwee dama fekk yoon wi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaroon saxaaba yi jaar ca gaa yu baax ñuy seen gannaaw ñëpp jaar ca yoon wa waxuma la ko cee jaar waaye ko koy gëstu jéem koo xam képp amatut ba yoon wa mel na ne lu far te la ci ëpp nag ci li ko jur mooy réer gu nëbb woon ci biir nit ñi nee ma ñëwoon nag ngir fàkkaan yoon wa leer ko mu leer nañ ba jëm ci yàlla nga xam ne yoon waa ngi nii nga jaar ci kon lool yi mooy li indi yoonu murit waaye nag dama faral di wax ne du caagi ne iraada wala ak taalibe dañ naan lislaam muy mbirum boppam beru ñu ne ak taalibe muy mbirum boppam beru déedéet lenn li la ndax ak taalibe ci biir lislaam la bokk mooy teggin rek teggin yi lislaam di jàngale mooy ak taalibe li tegtal na indiwut lu yees dafa sof rek ci lim fi fekkoon yéen saa su indi woon ko buñ delloo ci ay waxam day wax ne idabtadal muridu bi tawxiidi wal fiqhi wa tasawufi al majidi muntahijan madhaba ahli sunna ma al jamaati najamin fitna mu ne ab murid su fekkee dafa jóg fas yéene sóobu waaye jéegoom bi muy njëkk a mu def ko muy jéegob tawxiid jéegum ñaareelam di jéegu fiq ba ñetteel di jéegu tasawuf te lépp mu dëppale ko sunna si yéen saaslam eh, eh, dëppale ko ahlu sunna wal jamaa nee mooy murit te bu wàccul woow yoon dana mucc ci fitna tey ak fitna ëllëg kon ñett yooyu ci la tabax yoon wi mooy tawxiid fiq tasawuf tawxiid nag mooy ci tënk mooy nga def yàlla ki mu doon xam ne yàlla rek a yàlla moo sàkk lépp amal lépp ca kàttanam coobareem nammeelam tëliwut dara ku man lépp la lépp ci coobareem lay doxe lu dul yàlla ab jaam la ci yàlla te da ko war a jaamu gëm-gëm boobu ak xam-xam boobu ba koy ba koy jàngale moom la ñu tuddee tawxiid su tawxiid jàllee nag gannaaw boo gëmee ne yàlla rek yàlla te dañ ko war a jaamu nam rëdd wax ne ku may jaamoo nag ma jaamoo nii jaamoo ko noonee mooy fiq tasawuf nag mooy la la koy sell ba tax muy muy muy lu sun ba mën a nangu mooy te mooy mboolem say feebari xol nga dindi ko ba mu set lu mel ni kiñaan rëy bëgg àdduna ngi sal bañ ab julit ak yu mel raxas raxas ko ci soxla ba mu set wicc ba lépp looy jëfati yàlla dong tax loolu mooy tasawuf kon ñett yooyu ci la Sëriñ Tuubaa tabax yoon wi mu tabax mu yoonu murit muy leeral di wax ne ab sëriñ su fekkee dafay dëgg-dëgg aarif billaahi taala eh, du am mukk lim bëgg ci talibeem lu may gannaaw talibi gannaaw bu talibi génnee ci tànn tànnug boppam nga xam ne dootu tànn boppam dara dootu dootu eh, waaye day bàyyi léppam kilifaam jébbal ko léppam moo koy tànnal di ko teg ci yoon mu di ca tegu nee na bala nee na ab murit du mos mukk ci xosoosiyaat ci xeetu xosoosiyaat yi bàyyi ko ci sëriñ lu may gannaaw bu mel nii mooy bàyyi tànn boppam jébbal léppam tey wéyee ndigal ak bàyyi tere kon day mel nag dox yu nu murid dañ ko tànn ci dox yu nu malaayka yi alayhi salaatu wasalaam ndax suñu boo newoon na laa yasbiquunahu bil xayri wa hum bi amri yaamaluun malaaka yi day duñ jiitu yàlla ci wax duñ ko jiitu ci jëf waaye lu mu doon lu leen digalam lañ cay déglu te saa suñu digal la rote ca saa daal di koy jëfee kon ndoxinu e, yoonu murid foofu lañ ko jële Sëriñ Tuubaa ji boobu nag moo jàngaleel boppam lan moy ak taalibe leeral ko ci ay leeral yu leer naññ am na fu muy wax ne xaddul iraadati bi xawli saada tarkul muridi ma alayhi la aada summa rujuuhu ila al mu'taadi xabla wusulihi kal itidaadi nee na dëgg dëgg ak taalibe daal ci ni ko euh, ñu baax ñi waxe sang si waxee mooy murit bi dafay bàyyi lépp luy aada aada nag mooy la nga fekk nit ña ne ca te du lislaam la nit ñi kër kër te du diine loolu mooy aada di ko organiser ak di ca sonn mu ne waxtu woo xam ne taalibe bi na bàyyi na aada <coughs> ngir yàlla waxtu ca delluwaatee te fekk lu mu yóotu amagu ko muy amagu ngërëm yàlla wala àggut ci yàlla su delloo ci aada moog mu tub bi génn ci lislaam ñoom ci moom kal irtidaad la ko tuddee mooy mi ngi mel ni ku murtaat ku génn ci diine kon faaw eh, ba xasee xam am nag lam doon wut léegi sa delloo ci aada ak jàmm yàlla lay doon ci moom waaye li fee ëggut foofu nag na bu ca delloo day mel ni ku génn ci diine ñoo yam àtte ci moom waaye ndax lan mu ne idil muridu laa yuridu abada xayra ridar rahmani xaysu xasada murid daal mooy ki nga xam ne foo ko seen muy waaxu amul genn jenn yitte amul genn bëgg lu dul ngërëmal yàlla kepp ngërëmal yàlla dongo lay wut jéego bu mu séq moom la cee sàkku kàddu gu mu yëkkati moom la cee sàkku ay pas-pasam bi moom la cee sàkku mu ne nag ngërëmal yàlla la muy sàkku nag mënu ko am ci lu may jëfee ndigal ak bàyyi tere moo tax mu soññee ci wax ne imtathirul amra ma tasaarui wajtani bu nahya bila tanasui na ngeen di topp ndigal te di ca gaaw saa surotee bañ koo yeexe waaye nangeen ngeen di bàyyi itam lépp luy tere te bañ caa xëccoo waaye bu leen ci am mooy liñ leen tàndal na ngeen ci nangeen ci tënku ndax sëriñ dafa mel ni médecin ku ne xam ne ne maladie yi dañoo wute ku ne ak sa feebar waaye maladie bu ne ak garab ga garab ga koy faj sëriñ bi nag mooy xam yow liy sagara garab kon lam la tànnal ne la jaaral fii foofu foofa ca saafara woo yow kon faaw nga ko ci ak tànn lim la tànnal walaasimul lasi lakum yuxtaaru min rabbikum taatikumul asraar su ngeen toppee ndigal bàyyi tere tënku ci li leen tànnal ci ngeen door a amee nag eh, àgg ci yàlla ci ngeen door mën a am tam ay mbóot yu bàyyi ko seen borom dikkal leen waaye yoon wi bi nga ko sampee moom sintuwaan da ko sàkkal ay ponk ay ponk nag ci mbir mooy la nga xam bu fa bu toxoo mbir ma toxu na buñ ko doon misaal ci lislaam xam nga lislaam dañoo wax ne juróomi ponk la eh, gëm yàlla seere amuk yàlla ak yónnam yonent bi salaasam taxawal julli war weeru koor aj mag nata asaka yooyu soo ko bàyyee mooy lislaam nekkatu fa kon moo tax ko ca mabbu benn rek dafa mel yéen saa sama ko waxee eh, ku mabbu julli mabbu nga diine mabbu nga lislaam dafa mel ni bu doon mbaar mooy keno yu ko téye téye saa bu keno yi tuxoo rek mbaar ma nekkatu fa kon Sëñ da ko sàkkal nag yoon murid ay ponk lu toll juróom-ñaari ponk yoo xam ne mooy li tënk iraada sadiqa juróom-ñett juróom ponk yooyu nag mooy àndaar ji nga xam ne ci la murid bu nekk na natt boppam ba xam murid sadiqa wala déet ko ca natt say kooku mu feesal ko gëmal ni murid saadix nga sañ nga ko tuddoo sañ ko wuyoo waaye ko ca ku nat saba ci àndaat jooju nag yées ko na boo doone murid doonu ko doonu ko saadiq loolu lay wax ne liyanta bi kullu muridin saaliki raamal wusula lil badiil maliki ala umurin filuha buruuru wa tarkuha min alhawa gururu wa hiya sabatun bila ziyada wa man yulaazimhaa yahu siyaada nee na murit bi nga xam ne xas na sóobu ci yoon wi na yewu ci ne te te bëgg a àgg na yewu ci ne ay mbir ngeen yoo xam ne mënut ñàkk mu tënku ca mooy yoon wa yoo ko ci àggale tënku gam ci tënku nag mooy tudd ak mbaax waaye waxtu ko bàyyee nag ñàkk caa tënku nag ko woon ne bànnee xam war na ko muy juróom-ñaar yoo xam ne ëpp di yeesut waaye ku tàqoo ñoom day ko ne dana dana laax ak càng mooy dana doon ab sang kon juróom-ñaar yooyu mooy ponki taalibe ba ci njëkk bi muy lim bi mu njëkk a tudd mooy liggéeyal sëriñ bi te liggéey ba nga koy liggéeyal jëmmi yàlla dong tax mooy li ñuy tuddee li ñuy tuddee xidma xam nga xidma ak al amal ñaar yëpp liggéey la ko war di firee waaye ñaar dimension yooyu liggéey wuti nañu bu dee al xay na mooy rek liggéeyu aada ki nga xam ne dafa ubbi bitikam di jaay di yaxantu wala mu ubbi atelier di di di di ca liggéey moo xam lu mën liggéey waaye bu ne alxidma nag dafay liggéey boo xam ne dafa am rapport ak jaamu yàlla mooy dafa dafa dafa dafa dafa dafa taxaw ak yàlla subhanahu wa taala mooy liggéey bi nga xam ne jëmmi yàlla rek ko tax a jóg mooy liggéey bi ngay liggéey waaye sàkkoo ci dara ray tey waaye da nga ko def nga sàkk ci payu yàlla ak ngërëmal ngërëmam ak payu ëllëg loolu la ñu tudde xidma mooy nag di ko defal sa sëñ mooy bi bi njëkk ci ponki tali bi ko dëggu awaluha alxidmatu li na nasix li wajhi baaxin xat ata minhul fasix kon mooy bi njëkk ci ponki tali bi ko dëgg mooy liggéey sëriñ bi jëm yàlla dong tax mooy lu ñu tudde xidma di ko liggéey liggéey boo xam ne ngërëmal yàlla ak payu ëllëg nga ci sàkku waaye sàkkoo ci daray tey ñaareel nga bàyyi gaaral wala diingat diingat mooy di laaj wax waxi sëñ bi mbaa ay jëfam di seet loo cee jàpp ak looy bàyyi di seet loo cee rafetlu ak loo cee ñaawlu wala loo cee topp lu ci topp bu dee diingat na mooy nga di ci tàbbal ay baat boole ca sëñ bi day wërtoon def nangam man de wërtoon wax nangam wërtoon defal sàngam moom da xam naa nangam gaa yi ci dugal rek xeet yooyu sëñ Tuubaa neen li fekk bàyyi ko doonu ko ak murit mooy ñaareelu ponk ci ponk tali bi dugg da nga koy bàyyi ci ko ci baatin bàyyi ko ci zaahir mooy doo ko wax ci soo làmmiñ bàyyi ko ci baatin mooy doo ko fas ci sa xol loolu la wax ne wasaani tarku li'tiraadi zaahira wa baatinan bi ay yakuna taahira ñetteel bi ci ponkiteel bi ku dëgg mooy faw dangay xam lu say faratay jëmm ñaari farata am fardu aynin ak fardu kifaaya bu dee fardu kifaaya mooy farata ji nga xam ne suñu doon da ko gàll jullit soo amee mbooloo mu ca taxaw doy ca sëkkati di ko matale mu wàcc ña ca des su ca kenn taxawut nag ñëpp maa si am kenn du ca mucc jullit ñëpp loolu mooy fardu kifaaya bu dee fardu ayni nag mooy farata ji nga xam ne suñu doon da ko gàll jullit ñëpp waaye nag kenn mënu ca wuutu kenn ku ne yaa ko defal sa bopp nooy fexe balaab nooy jullee nooy woore nooy na tasak ak yemel ni ñoom nga xam ne faw yaa ko kenn mënu laa wutu julli lagee faaw yaa ko defe sa bopp mënoo am janaba keneen sangu sa janaba wàcc la yooyu nga xam ne faw yaa ko def sa kenn du la ci wutu lool la ñu tuddee fardu aynin farata yéen fexe ba xam ko xam noo koy defee ak atte ak sarte loolu mooy ñetteelu ponk ca ci ponki taalibe gu dëgg loolu la wax ne saalisuha taallumul furudi al mutaayanati bi tafridi ñeenteel bi ci ponki taalibe ko dëgg mooy faaw da ngay jébbalu da ngay sàkk kilifa goo xam ne da ngay ñëw ne ko maa ngi nii mun naa la defal ngay def mun naa la bàyyil ngay bàyyi nga doyloo ko rafet njort ci moom lu mu la digal donte dawuti la nga xamoon jàppan lii mu digal mooy li ci yow donte fekkee fekkee sëriñ bu matu sëriñ la su dee sëriñ bu matu sëriñ doo digal lu dul lu lu lu lay àggale ci yàlla lu lay tàqale sa bakkan lu lay tàqale seytaane Eh, lu lay jariñ kon lu mu la woon donte wuti naa la nga xam ne jàppal ni lii mu la woon rek mooy mooy yoonu ca la sa njariñ nekk waaye rafet njott ci moom nag mooy tax lam lay digal nga rafet nga gëm ni moo moo gën ci yow waaye ñàkk a rafet njort day tax doo ko topp te boo ko topp doo jariñu ci moom moo tax mu ne raabihu hastislaamukum bi xusni zannin fa suu zanni muddil xasni kon faaw nga rafet njort ci moom gannaaw boo aj gannaaw boo boo ko joxee sabab ba nopp juróomeel bi nga aju ci sëriñ bi aju gu wér goo xam ne du ànd ak feebaru xol feebaru xol nag mooy sikki sàkk ak a dengi dengi ndax te yooyu ñàkk rafet njot moo ko yóbbi xam nga sëriñ bi néew na lool lum naa samay taalibi mbaa sama taalibe waaye la ëpp ci lu may jëfandikoo mooy ña aju ci man baatu temps àlluq la ëpp lu muy jëfandikoo def naa kenn ci mag ñi mas na ko laaj sëriñ ma bañ Njaay sëriñ Bàjj Xuja eh, Balla laaj ko ne ko danoo bëggoon Mbàkke ak leeral ci taalluq muy baatu aju mu ne ko laaj nga lu mat a laaj wool fere yi sëriñ Tuubaa su ma sànni di wax lu ko yitte lu am njariñ day woote lu ñëpp fekke ko ngir ñëpp jariñoo ko bi nga koy leeral ne ko taalluq te moo di aju day mel yomu sol saw dal def barab ba am loo joggi loolee taq ca daal wa te bañ koo kël ngëj te mën a nekk ak daal ca nekkooy ba loolu mooy lan su fekkee da ngaa joggi ci misaal aw xeer wala xooxu màngo bu desee wow mu tax ci sa dàll soo doxee ñaari jéego mu mu mu mu mu mu ñaawal saw doxin nooy de da tax dindi ko sànni lu tax da koo kël ngëj moo tax suñ nekkee ci jotaay bi yàgg ñu ne am na luy xeeñ di xeet guñ tàmmuwut suñ seetee gis ko dañuy wax nañ seet dàll yi bu ñu seetee dàll yi daal bu ñu ko fekk dañuy génn moom xeet ko ci bitti ba mu seet ñu dellu si wa kon euh, day aju te bañ koo kël ngëj tamane nekk ak moom daan lool su su su dajee fu dàll wa teew loolu dafa teew kon mooy takkook sëriñ bi ci biir ak ci bitti suñ ne takkook sëriñ bi nag tekkiwul ne fu ne nga ne fa waaye la muy tekki mooy foo mën a ne nang fa nekk ndigalam di jëf ay ndigalam di bàyyi ay tereem nam bëgg ko ni mel nga mel noona ndax jege sëriñ taxu koo jege waaye sori ko taxu ko sori loolu la sëñ ba Jaxate doon wax ne eh, moom la doon tënk ci ay bayit di wax ne sëriñ ko aw ndigalam yaa nekk fii wonagam ne fi xolam ab sëriñ koy moy ndigal sëfu ko te donte yaa ngi fi poojam tey mooy ndigalam seenu diggante fi sut ndar loolu kon moyu ko te donte yaa nga fa manding tey jëfi ndigalam xamal ne yéen a ngay riisoo yàlla seere na ko kon eh, jegeb sëriñ taxu ko jege sori ko tax ko sa waaye la nga koy jege ko sore ci saw doxin lay doon ci sa pas-pas lay doon ci sa comportement lay doon ci sa eh, pas ak saw doxin lay doon ca ngay jegee sëriñ ca ngay soree sëriñ eh, moo tax Sëñ Tuubaa ko misaal moom temps lox daana ko misaal ci ak saxaar dalaa wax ne bu leen jaawale ñaar ndax niiroo na lool te wuute muy necce ak saxaar ak nefi ak saxaar necce ak saxaar mooy dem nga ca gaar ba fekk fa saxaar ga nga dugg bee dugg ci saxaar gi toog boo yaa ngi ci saxaar gi fu saxaar dem dana la fa yóbbu nefi ak saxaar nag mooy yaa ngi ci gaar bi saxaar gaa ngi ci gaar bi waaye duggoo bu saxaar demee bàyyi la fa kon ne ci sëriñ bi ak ne fi sëriñ bi du benn ne ci sëriñ bi mooy la muy digle yaa ngi koy def la muy tere yaa ngi koy bàyyi ndam bëgg ko ni mel mel nga na suba yaa ngi ci biir sëriñ bi du dem ba ko bàyyi la ne sëriñ bi na mooy yaa ngi koy tuddoo rek wala sax yaa ngi ci biir këram yor yi caabi tëj ak tijji waaye la muy digle defoo ca dara la muy tere bàyyiwoo ca dara yaa ak sëriñ bi seexu leen dara kon loolu mooy aju Euh, juróom ñaareel bi wala juróom benneel bi mooy danga koy bëgg bëgg gu wér ci sa xol ba mu gënal la sa jëmmi bopp gënal la sa ñaari waajur gënal la sa doom joojur gënal la ci mboolem nit ñi te loolu ca saan lislaam ndax yun saa su ne woon du ngeen am lu baax du ngeen gëm mukk li fekk li fekk gënaluma leen seen bopp ak ci mboolem nit yépp da ko bëgg wax xam ne lay yóbbu ci sax yow far dootoo am looy bëgg ak looy bañ waaye da ngay jël bëggu sëriñ bi def ko muy sa bëgg jël ak bañ def bañ def ko muy sa muy sa bañ loolu lay wax ne saadisuha xubbun yaquudu lin jaal muraadihi wala boog saadisuha xubbun waaw muraadihi foo xamana bil fial saadisuha xubbun yaquudu lin jaal muraadihi faw xamunaahu bin fial juróom-ñaari bi nag mooy lépp lay sàkko ci yàlla na nga ko sàkko ci barkeem ndax mooy sa bunt ci yàlla te alxuraan nee na waatul bu itamit boo abiha su ngeen di dugg ci barab na ngeen ba gannaaw mooy su buntu ci yàlla kon lépp koy jaar ci moom saabiuha allah yaruma faida bi xayrihi man ata bil mayda si dama wax ne yii nag juróom-ñaar yi mooy njaal benn yi nga xam ne ki sóobu ci lay jaar bu ci jaaroon ngir sóobu nag ci lay door a mën a mucce nag ci mboolem yi ëkk yi nga xam ne ñoo ko mën a gàllankoor ñu koy teq ba tee ko mën a àgg fa mu jëm fa haadihi atat muxaddamaati li taalibil ismati min gumati almuridi yi nag kon mooy lislaam ndax yi yi lim fii yëpp lenn génn ci lislaam kon li moo xam ne du caagi ne lislaam daa beru di mbir iraada beru di mbir waaye mel ni mbir mi la ci biir sànq bokk nee naa léegi iraada mooy ki am lu mu bëgg wala talib mooy ki am lu mu bëgg kii bëgg nag mën naa bëgg lu baax mën naa bëgg safaan ndax ñaari muritaam muridu dunya ak muridul axira muridu dunya bu ñuy wax ko Sëñ kooku taxu ko jóg waaye muridul axira moo ko tax di woote te alxuraan moo ko njëkk moo ko njëkk a wax minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu laaxirata am na ci ñoo xam ne àdduna dong lañ bëgg moo leen tax a jóg am na ñoo xam ne ngërëmal yàlla ak payug ëllëg moo leen tax a jóg muri googu la Sëriñ Tuubaa woote sëriñ bi wax ne al muridu man laa yamliku shay'an wala yamlikuhu shay murid mooy ki nga xam ne moomul dara waaye dara it moomu ko moomul dara ndax lépp da ko jébbale da ngaa jébbale sa ruux te ko moom ginaar moomaa la ay nenam kon da ngaa sa lépp kon moomatu dara dara du la moom it am na ñoo xam ne seen bakkan moo leen di moom am na ñoo xam ne seen alal moo leen moom jiital di di di di jiital rek di di di di sañaxal am ñoo xam ne adduna bi moom ku ak la moom murid na mooy ki dañ ci moom it lépp ba mu des moom du yàlla rek alal du ko tënk bakkan du ko tënk adduna du ko tënk waaye ndigal rek ko koy tënk mooy kon yàlla rek ko koy tax ju ngërmal yàlla rek lay sàkku kooku mooy murid moo tax man takkoonu fii ka takkoonu muridan summa fii ka iradatun fa in turid shay'an fa anta muridu di wax ne murid laa ba noppi amati looy bëgg neen déedéet soo demee daal ba bëggatoo dara dara dara lu du yàlla subaa nag yaay dëgg-dëggi murid moo leer ko fenn fu gën a leer ne wasful muridi tarkuhul iraada li wajhi may yafalu ma araada melokaan murid daal mooy dafay bàyyi bëggati dara lu dul yàlla dootu bëgg lu dul yàlla lépp lu muy bëggin ngir jëmm yàlla tax mu di ko bëgg man lam yuri shay'an siwa mawlaahu yasil lahu wa xayruhu awlaahu ku dem ba bëggatoo dara dara lu dul yàlla nag di ko sàkku faaw danga nga àgg ci yàlla te boo àggee la nga doon wut lépp nag ca nga koy yàlla mu ngay wut nag kon mu ne kon faaw da nga koy jaare ci ñaari loxo sëriñ bu matub sëriñ wax daf lay laay biire di la womat ci yoonu yàlla di ko jaare ci ay laay biir ngir àggale fi nga jëm fasluk ala yaday murabbin nasixi yaquudu lil ilahi bin nawasi nanga sóobu ci yoonu yàlla jaare ko ci ñaari loxo sëriñ bu mat sëkk ab sëriñ mu di la laabiire di la ma jëmale ci yàlla di ko jaade ci ay laabiire kon nga xam ne kon iraar kon am murit kon aw doxin la aw doxin la li ma waxoon léegi kon faaw murit bi ne lay tax mu am lu mu bëgg faaw da koy jaar ci sëriñ matu sëriñ kon sëriñ it du caagin ko kaalawu ab sëriñ la waaye sëriñ day am na mel jo dool ko tuddi ab sëriñ Eh, sëriñ bi yëbboo ci yàlla faaw day am qualité yu daje ci moom sëriñ bi àgg ci yàlla nag moo ci mën a àggale waaye ki demul fenn mënut a kenn fenn eh, moo tax Sëriñ Tuubaa doon wax ne fa man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi aksihin képp ko aju ci ko àgg faw dana àgg waaye ko aju ci ko demul fenn fa nga topp fu mu rek fa nga yem waaye sëriñ bi àgg ci yàlla nag lay tax mu mën la ca àggale ba tey yaa ko cay jàppale mooy faw nga jëfe ndigal bàyyi ay tereem ab sëriñ lu mu baax baax baax lu mu mat mat ab sëriñ li fekk toppooy ndigalam bàyyi tereem mënu la yóbbu mënu la dara ci misaal di mu koy misaale mooy su fekkoon da bëgg a dem Dakar kii gaari oto ne duggal ma yóbbu la nga ne ko du ma dugg ndax danga dem déedéet kon sëriñ bi dalaa bëgg a yóbbu ne la duggal nangoo dugg kon mënu la yóbbu kon dugg ga nag mooy nga ko ci ndigalam bàyyi mooy tax yóbbu gam la yóbbu yomb moo tax mu ne fa xaysuma amarakal murabbi fam tasilil fam tasil amra tasilil rabbi saa bu la bi digalee na nga la mooy tax nga àgg ci mooy tax nga àgg ci yàlla saa bu la tere it bul jàng mu ko jëm ci lam la tere te bul sàggan ci sàkku ngërëm ndax saa bu ngër ngërëm mooy ngërëmal yàlla wa xaysuma nahaaka an shay'in fala tamil lahu wa an ridan laa taxafula mu ne nag sëriñ boo gis ñaar yëf képp la bëgg ci taalibeem neen sëriñ boo gis ñaar la bëgg ci taalibeem mooy teexale ko seytaane àggale ko ci àlla neen sëriñ boo gis loolu la bëgg ci taalibeem idil murabbi laa yuridu fil murid si wal wusuli naaji minal marid ñaar ñaar képp la bëgg nga ne ko kuy sëriñ mat sëriñ ak kan mooy sëriñ matu sëriñ mu ne fama faman ala xayril ilaahi dallaka fa firra minhu innahu adallaka sëriñ boo dem mu bàyyi yàlla di la won boppam ne jàppal ne kooku boo ko toppee daf lay sànk du ab sëriñ nga ne kuy sëriñ mu ne fa man alal ilaahi dallaka fa in xaalaftahu fa lil mari tatmain sëriñ bi nga dem na won la bopp xanaa yàlla rek la lay woon nee na jàppal kooka mooy ab sëriñ waxtu boo ko fa bàyyee na la wone seytaane nga topp léegi kon faaw rek nga gëm yàlla ngëm gu wér wommate ci aw yoonam wombut gu wér rafetal say doxin ak sa pas-pas ak say jëfin su fekkee bëgg bëgg nga saw doxin jëm ci yàlla rafet kun muminan wa musliman wa muhsina inunta saynal ilahi tahsina eh, sëñ Musaa Ka it doon ci wax ci lu mel noonu di wax ne la sëñ Tuubaa waxoon ne saa boo demee ba gis sëriñ bu tegee ci yoon jafe buñ mën a topp nag léegi dellul ca la mag ñi bindoon gannaaw fañ fa yoon wu yoon wu jëm ci yàlla yëpp leeral nañ ko ci bind dellu ci yoon wooye nga nga nga topp lañ ci bind tegtale ko doon junj mel noonu eh, kilifa yi nga xam dong yaa ngi suñ jëmm yaa ngi suñ xeddi yaa ngi gisuñu Bàmba su ngeen mu daa aw nu topp cay daw ba fekki Bamba su ngeen di réeroo mbaa ngeen di weeroo mbaa ngeen tasaaroo ni noonu Bamba nu sës fa yàlla tey jaamu yàlla te xam ne yàlla fi wutu Bamba bul woo mu xëy ne janjang di indi dang-dang ci suusi Bamba tubaab akub seef ak di xëccooy suuf day tax day tax sëriñ soof ci yoonu bàmba bul tax yaakaar yow la yaakaar bul tax nu bàkkaar royal ci bàmba tër bi yëddu tër bi yëddu dagg am na na aw dig moytul ma am ndog royal ci ba du yoonu bànneex du yoonu koy xeex bul tëdd bul xiix seetal ci ba kon lam bëgg a wane rek mooy euh, li fekk ña ngay topp tege ci yoon wa ñu topp leen waxtu ñu bàyyee yoon wa na xam nañ fa Sëriñ Tuubaa woon tegtal na ko ñu ñu jël teg foofu sunu tànk euh, ba tey it mu wax taalib yi itam na mu war a toppee te loolu waxi Sëriñ la ci nett li kuy topp saa ndigal di ba li may tare loo sori sori yaa ngi fi mën dootoo sori koo xam ne doo topp ndigal doo ba tare loo ma jegeñ jegeñ jegeñ yaay ko sori feex ci feneen tuxul ci ay xaram sancal ci ay maram bàyyi xaram bàyyi ci biir doona malaam Cheikh Bamba nee na loolu moo di ab dëkkam loolu moo di dëkkam ku ko mënul doo dëkkandoom doo mbokkam eh, Sëriñ Tuubaa leeral nag Eh, dénk boo xam ne da ko dénk ñi aju ci moom ñëpp bone ne almutaalliqina ku aju ci moom ku nekk tàbbi nga ci biir loola mu am dénk bu am solo bu dénk ñi ñi aju ci moom ñëpp wasaytukum yaa man taallaqu biya fi sirri wal jahri li wajhi rabbiya an tatruko muharraman wa ma li wajhi rabbikum wa kulla bi dénk naa leen yéen mboolem ñi aju ci man yéen kon mooy taalibi yëpp ci lu nëbb ak lu feeñ ngir jëmmi sama borom ngeen bàyyi lépp lu xaraam bàyyi lépp lu ñu sib bàyyi lépp lu lënd lu xaraam xamees na ko mooy la yàlla tere ba noppi dogu ca tere ga gàll ci ab yaram lu ñu sib mooy la xam dañ koo tere waaye nag forcé wuñ la ca tere ga soo ko bàyyee daal soo danga nga am tiyaaba ca bàyyi waaye soo ko defoon nit bàkkaar du la ci fekk lu leen nag mooy loo xam ne xamoo lu ci àtteb sariya te wax ne xultu waxat xarama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila fi'lan bi xayri ilmi xukmi shar'i fiihi yàlla ci bépp mukallaf muy jenn jëf te xamul lu ci loo xam ne loo xam nag lu ñuy jëf la waaye yàqu alxuraan mu rootu ca bu koy tere xadis rotu ca borom xam-xam ba loolu lañu ko ab àtte ci seen seen seen eh, ittihaad ci ñaar yooyu loolu lañu tuddee mushtabih mooy lu lënd yenn saa sama saa wax ne li li dagan leer na nañ li xaram leer nañ am na seen diggante lu ñu tuddee ay mushtabihaat mu ne yooyu nag ko bëgg a ñoŋal diineem bëgg a rafetal aw doxinam nag na ko moytu ndax ka ca nekkan mi ngi mel ni koy sàmm ci diggu tool diggu tool na ka ca sàmm ba jur gay dugg ca tool ba doo ko yëg su ngeen bàyyee ñett yooyu nag na ngeen ko remplacer yeneen ñett waaye waaye fekk nag dafa njëkk ne ku ku ku leen leen maase xàmmee ko xàmmee lu xaraam ak lu ñu sib ak lu lënt na daa teqali ko ñu fasaasa ku leen xàmmee woon na dem ci na dem ci ku leen xam mu ne ko maa ngi nii mënoo ko def mu def naa ko bàyyi lay bàyyi mooy ajul ci kaw koo xam ne xam na ko mu dee digal di la tere wala simul waajib man alima jamia fa lay fariqa man alimal jamia fal yufaariqa on biha jahila fal yurafiqa daal di wax ne nag su ngeen bàyyee ñett yan na ngeen remplacé ñett yi su ngeen bàyyee lu xaram neen ko remplacé lu war su ngeen bàyyee lu ñu sib neen ko remplacé lu ñu sop su ngeen bàyyee lu lënt neen ko remplacé lu daggan lu am njëriñ walazimul waajiba wal manduuba wa ma ubiha taxtawu taqriba waaye na ngeen ko itam ak sàkku xam-xam tey jëfe xam-xam ba xam-xam mun ta ñàkk ndax lépp ci lay tage waaye xam-xam boo ko amee tey jëfe ko ba tey amul njariñ kon faaw ñaar yëpp li ñuy boole dangay xam waaye xam nga itam nag nga jëfe ko mu door njariñ lépp nga dëppale ko ak sharia mu ne waaye na di làmboo teggin ci lu feeñ seen digganteeg seen borom ak seen digganteeg seeni moroom am na feneen foo waxoon teggin sa digg sa borom mooy ngay jëf ndigali yàlla yi di bàyyi tere yàlla yi di sant xéewali yàlla yi di muñ nattu yàlla yi loolu mooy teggin sa digg sa borom teggin sa digg say moroom mooy ku yàlla teral nanga ko teral ku yàlla jay nanga ko jay kum tëralut jeyu ko bokk ca na ko yàlla melal loolu mooy teggin sa diggante bi ne mooy ku ne ku ne rek fa ko yàlla na ko yàlla def def ko noona mooy teggin sa diggante ak bindeef yi na ngeen itam ak di yaakaar yàlla ci sababu si jëf ci kaw lay tege mooy da jëf la yàlla digle door a jot nag ca lëm dële wala yàlla def digle moom kenn du la fa jiitu lool ci li sint Tuubaa di topp njort la bokk topp njort te topp njot nag mën naa mën mën mën na laa tàbbal ci waru mu ne waaye it na ngeen taqoo ak ragal yàlla ci saw bàyyi jëf bàyyi bàyyi tere bokk la bëgg wax bàyyi tere dangay ngay bàyyi tere door yaakaar mucc ci sawara waaye lañ tere bàyyiwoo ca dara jàpp ne sawara muñ ko wax taxoo koo jóg loolu ba tey ci war la bokk kon dangay jëf jëf ndigal yi door yaakaar tabbi aljana bàyyi tere door yaakaar mucc sawara loolu lépp waxi Sëriñ Tuubaa la walaasimul xawf rajaa bil amali fii ma bihi amara dul jalali walaasimul xawf bi tarki nahyi bi tawbatin muslihatin lisan yi xam na koy boole tub gu sell na ngeen taxaw di jàng alxuraan itam guddeeg bëccëg kem nim jàppandee ci yéen walaazimoo tilaawatal quraani fi layli wan nahaari bil imkaani na ngeen di bëggal itam mboolem bindeef yépp aw yiw na ngeen bëggal ñëpp aw yiw bindee fi suñu boroom yëpp ndax suñu borom mi leen bindikat gërëmul ci ñoom gërëmul ci ay bindee fa aw ay lu baax rek la la la la bëgg ci ñoom moom mi leen bind kon na ngeen di na ngeen di na ngeen leen koy bëggal leen jàpp ci lu leen cee jotale kunu muhibbiina alxuyuura li jamii xalqi ilaahina almuqaddimi albanii fa innahu subhanahu la yarda an li xalqihi charra adimul xarda mu ne nag lépp loo xam ne nit ki jiital na ko ci ay jëf yu baax mu néew mu mu bari saa bu demee faw dana fekk ak payam dana fekk payug loola foo kullu ma xaddamahu l insaanu fa bil jaza yaji'uhu loo jëf rek lu mu néew néew suñu daal la fay loola ba Tuubaa nag leeral na nag kon ab taali bi nag nan lay àndeek sëriñ ba nan la ab taali bi di ko sëriñam la ci jiitu mooy nga wekk ko danga koy wekk fa week yam nga dale fa jëm kaw week ko sub <coughs> def ko muy sab sang la nga gën li lépp nga di ko jox lépp lu baax jàppal ne moo ko yeyoo nga xañ ko sa bopp nangu ko ko féetale te di ko fajal aajoom li fekk yaa ngi dund sa kàttan ci di ko jox sa alal ak di ko liggéeyal sa kem kàttan wa gaayata tawqiiri waqir shaykhaka waj'alhu sayyidan lahu hëb xayraka waqdil xawaaija lahu ma ishta bil badli wal xidmati mastatanta war nga koo warmaal day dayob warma bokk na ci warmaal suuf ne booy toogee ci kanamam bu fa dee xàqataay di ree wala nga fay wax waxi caaxaan wala nga fay soow coow lu bari ne da ngay def tek bul nekk di di wiir wiiri gestu wala nga bari bi yëngutu dangay def tek yaru sëgg noppi lu dul daf laa wax loo wajtaniban daxkan wa mazxan wa saxab amaama cheyxika ida rumtal adab wala takun ladayhi daltifati daltifati wa daa jihati boo toogee fu mu bul bari ay wax nanga def cell soo fekkee da ngay sàkku ak njubam wala tukathir al kalaama indahu bal kun samuutan li taxuusa rushdahu bul ànd ak moom lu dul nga di ko màggal itam di ko joxub cër fuñ leen seen nañ xam ne kii sëriñ bi kii dong bi waaye su fekkee yaa ko dàq gomewu yaa ko dàq xoggali ko ba bu ku leen gis di leen xàmmee du tali bi mooy ko na nga wàcce saw ci kanamam ba ku gis xam ne kii dongo bi kii sëriñ bi lu dul loo xam rek lor lor la lu mënta ñàkk moo tax mu ne wala tusaaxibhu bila tabjili fi zamanin kada bi haadal jili laa taj'alhu misla saaxibin xadar illa llati laa budda minhu min darar bu ca yamaay lam lay tegtal ci ay ndigal ak i laay biire na koy déglu bu baax tay gaaw ci di ko jëfe donte sa bakkan da ko sib waaye lam lay tere it nga di ko moytu bu baax donte dafa dëpp sa bànneex wastami allati alayhi dallaka mubaadiran walaw abathu nafsuka wandur ila maanu xandaxaaka wa minhu firra wajtanib hawaaka mu ne bul dañit di ko jox hadiya ngir topp li ci ne hadiya dana dolli cofeeluk sëriñ ci ab taalibeem wala tasal ilayhi ta ihdaa'i lahoo bi mastata'ta min ataa'i walaw xalilan limtisaali ma warat min anaha taziduhu ba ma yawat donte néew na kon hadiye dee ko joxe donte néew na hadiye ci yoonu murit la bokk lu mat a fonk la lu mat di joxe la eh, te nag sonal sëriñ bi cib laaj sëriñ ba joxe daa waxoon ne alal ju sab sëriñ na cas jox la ko ñépp di ko gis jooja alal du tekki tus mëtu la bëgg doo alal lu barke nekka di alal nde lu mu nekkul du alal sëriñ ngërëm laa di alal nde ci la barke nekki pal boo dul joxub sëriñ dara te doo ko teg dara dara gën ku ko dul jox na dara te di ko laaj ak la jël ñàkk joxub sëriñ dara gàcce la teg ko nag dara ak moy la bul tege dara kuy tege deefu ko tegal daan ne ku joxewul dara dara te laajulit dara dara mëtula wax dara dara ngir loruwul jëriñëwul kuy tege deefu ko tegat kuy tege deefu ko bégal deefu ko dàkkuli mbugal kuy tege jàddal ndigal teg sa sëriñ la fa xuwul lu sa sëriñ fab jox la ko te xam ne laaju lëkku ko fa boo ko delloo ko ko doy nal ak bon xalamal kon ñu kon nga dégg ci kon sëriñ dangay danga koy danga koy jox waaye doo ko laaj am na fu muy wax naan cel dem ba naan murit dada laajub liggéey tey bëgg bëgg ab liggéey te lu mu am ci ab liggéey jox ko tey déglu ndigal kon dee ko jox sa alal te bu ko laaj dee ko laaj ndigal te bu ko jox ndigal kon hadiye kon lu am solo la ci ci ci ci yoon wi mu ni itam del dàkk ak bëggam di dàkk ngërëmam ci lépp loo xam ne jàpp nga ne soo defee lii que da xolam dana ci sedd nga bu ci bu ci nekk mu déggal la ko waaye da ca dàkk ak bëggam ba tey coon la loolu lay wax ne wala war a ay taxaloo fi am ri yemilukun li zaka sa taxar yi loo mu jàng jëm ci nanga ca dàkk ci ak nanga ca dàkk ak bëggam waaye lépp loo ko tàmbali na nga farlu itam ba àggale ko ndax jëfit balaa rafet dafay mat wajtahidanna ba'du fi isalihi fa inna xusnal fi'li fi ikmalihi mu ne war ma ji ngay jox sëriñ boo ko yamale ci moom képp waaye loo aju ci sëriñ ba nanga ko ca boole moo tax mag ñi dañ daa wax ne fasu sëriñ sëriñ la bul ca war lalu sëriñ sëriñ la bul ca toog wane ko sëriñ la bul ca dugg lépp sëriñ sëriñ la kon war ma jang ko jox nanga ko joxaale léppam moo tax wax ne ko aju ci moom nanga ko war maalaale moo xam ab jaamam la moo xam soxnaam la moo xam ku mën a doon eh, nanga ko war maalaale amaana ca saabu ba su loolee mu xool la bët boo xam ca ngay amee nga bëggoon lépp te dootoo sonn xool boo xam daal la daal la doy da suñu la ci doy loo sëkk walif bari coono gannaaw loola mooy ndax xoolub cofeel bu bàyyi ko ci sëriñ jëm ci taalibeem ak dolli la ak kawe la ay may la wa kun li kulli man bihi taallaqa ahlan abidan wa siwaahu mutlaqa muxtariman laallahu la kay jot bi nadratin biha tanaalu ma turid bi nadratin yox neeka mawlaaka an kasratil kaddi fakun muntabiha fa nadratul xobbi min alcheyqi ila muridihi hiya al masaaya mu ne daal lay tax daal ab nga mën a jariñ ci moom dëgg dëgg dëgg mooy nga mel ci kanam ni taalibi ne ne néew bu ñu sang ab néew bu ñu ko sang du taamu day bàyyi ko rek ci kanamu ka koy sang fu mu ko wëlbati jëm mu jëm foofa nen noonu la amut di mel ci kanamu sëriñ door mën a jariñ ci moom wakun la da cheikhi kamaytin wadia bayna yaday kon wow doxin mooy wi doxin wi nga xam ne ni njëkk a jaayante sëñ Tuubaa ànd ak moom foofu rek la ñu tegoon seen tànk na sëñ Tuubaa nga xam ne murit murit kat su bëggee jariñu day fas ci ab sëriñam ci ne mooy ki dox digganteem ak boroomam soo dee muy topp ndigalam ak a bàyyi ay teram wóor ko ne sëriñam bii kat du ko digal dara lu dul ndigalal yàlla koo xam ne pas-pasam noonu la demee faaw dana làq njariñu àddina ak àllaaxira waaye ne waaye mu teg ne bépp sëriñ nag buy digle te la muy digle ah, mbaa muy tere jëliwu ko ci ndigalal yàlla xanaa day digle jëliwu ko ci itam ci ndigal yonent salaasam waaye dafay digle ngir bakkanu boppam ak ak bànneexam di tere ngir ngir bakkanu ak bànneexam kooka fadalun mudillun ku sànk la koy sànk wax na fa innal murida ida arada al intifaa yantaqidu fi cheyqihi annahu wasitun baynahu wa bayna rabbihi wa yamtasilu amrahu wa yatanibu nahyahu wa yuqinu bi anna cheyqahu laa yamuruhu bi cheyin illa bi idnillahi tabaraka wa taala wa man kaanat aqidatuhu hakada fa innahu yaxtawi alfawaida fi dunia wal axira wa kullu yamuru wa yanha bi xayri idni min allahi tabaraka wa taala min rasulihi alayhi salatu wasalaam wa yamuru min jihati nafsihi wa hawaa wa min jihatihi ma mu ne loolu lay junj ci wax jama doon wax ne wa taatu man yaqfur rasul salla alayhi allahuma yaxbu bisul min roasa yi diini dil kamali man laa yura minhum siwal jamali ne ca laa doon wax ne kan waru la ñuy topp ki nga xam ne dafay xeeñtu yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne la muy def lépp da koy tëpp dëppale ak sunna waru gar la ñu topp ci moom jëfee ndigalam bàyyi teram ci kilifa yi nga xam ne e, ñooy kilifa yi diine diine jii te doon ñu ma sëkk ña nga xam ne duñ gis ñoom lu may ab taar taaru jëf ak taaru jikko kon warugar la topp ci ñooñu lii gën a dëggal nag Sëriñ Tuubaa li mu woote dara génn ci lislaam te waxoon ci njëlbeen ci ne euh, waxoon naa ne mooy tàmbali ne du caagan dañ naan lislaam muy mbirum bopp mber ñu yoon mu muy mbirum bopp mber waaye ci biir lislaam la bu ñu xoolee laaj yi nga xam ne gouverneur bu général bu Ndar laajoo na ko bi tontu yam tontu ca ngay jàngee ne sëriñ bi kat lislaam dong la woote euh, gouverneur bu Ndar dafa bindoon toll ci fukki laaj ak juróom yónnee ko Serigne Touba dañ ci jaar jaar bu gaaw ngir bañu guddal da laaj bu njëkk da koo laaj ne nekkoon yoonu murit fan la njëkk a soso wala ci kan la njëkk soso yoonu murit ci kan la njëkk a soso ma ni la si ta asasat minu tarixatu murid awalan ñaareel mooy ana kookee kookee yoon mu soso ci moom fan la juddoo fan mooy barabam ñan ñoo ko njëkk a topp lan moo ko taxoon a jóg ci mën réew la ëpp lu lu mu nekk daal lu muy dox juróom-ñaari mooy fan la faatoo moom ki njëkk ki yoon mu soso ñoo fan la faatoo ak ñan ñoo des yoon woowu yoon wu jiit yoon wu njëkkoo ba léegi nii juróom-ñeenteel mooy ñan ñoo njëkk dundal yoon wi fii ci ci fii ci Afrique sow jant fukkeel bu mooy ci ban man réew la jaar ba tabbi moom yoon wi ci man réew la jaar ba tabbi fii ci Afrique fukkeel baak benn mooy ana ban barab la yoon wi gën a noté fii nu toll man réew la gën a noté fukkeel baak ñaar ñan ñooy ñi nga xam ne ñoo ko njëkk a jële ci ñi ko njëkk dundal ci réew mi fukkeel baak ñett mooy lan mooy taarixam maanaam yoon murid kañ la sos na yépp lan mooy taarixam kañ la judd fukkeel baak ñeent ñan ñooy kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa yoon murid jamono ji nu toll fukkeel ba ak juróom mooy lan mooy cosaanu sëriñ bii may waxal jubli ci sëñ Tuubaa sëriñ bii may waxal luy cosaanam moom moom kañ la tàbbi ci yoon wi ak ci ñan la ko jële ak lan la may dolli ci xibaar yi boppam fukkeel ak juróom-ñett yooyu la gouverneur général bu Ndar bi noonu yónnee ko sëñ Tuubaa ñu doon dafa tàmbalee ci bismillaahi rahmaani rahiim xul huwa allaahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu daan tontu li ci li nga laaj ne fan la yoonu murid soso ussu tariqati al imaanu bi tawxiidi wal islaam bil fiqhi wal ihsaan bi tasawufi kon loolu mooy lislaam ñoom cosaanu yoon wi daal mooy gëm yàlla gu tege ci tawxiid muy wéetal ko ak lislaam ju tege ci fiq muy jaamu yàlla ak lihsaan ju tege ci tasawuf te mooy sellal xol ak jikko la nga laaj nag eh, fan fan maanaam fan la juddoo mooy mépp réewum lislaam moo xam ne ab jullit juddoo na fa rek foofu mooy fa mu juddoo gis nga yaatal gi fa kullu man tawallada fii baladin ma min bilad islami fa zaaka mawliduhu fan mooy barabam ba tey ni ko noonu rek bépp barab boo xam ne ab jullit moo nga fa dëkk rek foofu mooy barabam ñan ñooy ñi ko topp mooy almutaallim xana bil xira almutaallim bil xira ñi doon jàng ñi doon sàkku xam-xam di jàng ñooy ñi ko jëkk a topp lan moo ko tax a jóg fa wajhullaahi taala karim yàlla don nga ko tax a jóg lan mooy réew mi nga xam ne ca eh, ci la murit bi eh, di di di di di wëndeelu mooy fi bila fa mooy réewi jullit yi rek lan mooy barab bu faatoom mu ne bépp barab boo xam ne man a képp koo xam ne faatu na ci borom tariixa yi barab ba mu faatu mooy mooy barabu ka sosu murit fa mu faatu li nga laaj ne ñan ñoo des yoon wi yoon wu jiitu ba fii ñu ko waxee fa humul muminuuna al muslimuuna al muhsinuuna xaytu kaanu mooy ñi gëm yàlla tey wommatu ci aw yoonam tey rafetal ak fu ñu mën a nekk rek ñooñ ñoo ñooy ñi des yoon ba tey li li nga laaj na ñan ñoo ñan njëkk dundal yoon wi ci Afrique sow jant mooy a cheikh abdul xaadir jilaani yi wa abul xasani saasali wa Cheikh Ahmadu Tidiane alayhim ridwanullahi taala alayhim ajmain mu ne ñooñ ñooy ñi njëkk a dundal yoon wi ci sow Afrique te xam nga loolu ñetti ñetti tarix ku ci nag dafa yëf tarixa waaye kon ba tey mi ngi wone ne moom lislaam rek la tënkul ci ci ci ci ci ci benn benn benn benn ci benn barab mu ne nag li nga laaj na fan la euh, yoon wi jaar ba tabbi ci réew yi ci réew mi fa min al mashaayixi fa min mashaayixil waasiliina ilallaahi tabaaraka wa taala al muusiliina ilayhi subhaanahu wa taala xaytu mi ngi bàyyi ko sëriñ si nga xam dañoo àgg ci te doon ci ak fu ñu mën a nekk rek ci àdduna li nga laaj ne ban barab may bi nga xam ne fi la gën a ci la yoon wi gën a nooti fi ne falam yabqa fil bilaadi ma yaani bi haati tariqa al daanaka nag mën naa ne àdduna ci réew yi ñu nekk Eh, ku tënku ci yoon wi dëgg dëgg dëgg sàmmonteeg sàrt ya daanaka amatut li nga laaj nag ci ne ana ñan ñoo ko njëkk a jële ci sëriñ sa ko fa indi fa alladina yuridoon wajha llahi taala mi samani rasul saasam ilaa samanina hada mooy dal ñi doon sàkku jëmmi yàlla la ko dale ci jamono yonent bi salaa salaam ci suñu jamono yi ñu toll li nga laaj na yoonu murid kañ la sosu kañ la sosu maa fa minal hijrati nabawiyati ila hamsasin mi nga sosoo kere ba yén saasan gàddaay jóge Madina jóge maak jóge maak jëm Madina ba ci hamsasin ji nga may laaj laaj yi muy atum junni ak ñett téeméer rek eh, ñeent fukk ak juróom kon mooy lislaam rek mooy lislaam ne ko li nga laaj na na na ñan ñooy kilifa yi ci nekk ba ba fi ne ni fi na daanaka daal kenn ci kilifa yu dëgg yi daanaka desatu ci li nga laaj na lan mooy cosaanul kii lay tontu kii di tonton bi lan mooy cosaanam fa usuluhu muminuuna muslimuuna muhsinuuna ay cosaanam daal mooy ñi gëm yàlla tey womate ci aw yoonam tey rafetal amaa nag li nga laaj ne wan waxtu la tàbbi ci yoon wi moom ki ngay waxal mooy fa innahu axataha min annaasi allatina kaana yadun kaana yadunnu annahum muhaqiquun summa bada lahu anna al amra lam yakun kadalika fa gayyabahu llahu taala ila al bahr fa talaqaha ay al awraada thalathati min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bila wasitatin bi sababi kathrati xidmati lahu wa jaala allah tabaraka wa taala alqur'ana wal islaamu wadiatayni lahu wala wala man aqul wakil bu dee nag li nga laaj ci ne man eh, eh, li nga laaj ci sama sama mbirum bopp mooy man day yoon wi dama ko dama ko jëli woon ci nit ñoo xam ne dama leen jàpp ne ñu dëggu lañu waaw ma dem ba mu leer ma ne ndekete la ma fogoon ak nam deme bokkut suñ borom nag yóbbu ma ci géej gi tabaraka taala ca biir géej gi nag falaa ma sun boom falaa fala jotewaat ñetti wirdi yi yi ma tudd mooy wirdu xaadira wirdu tijaan du saasili jëli ko ci yenn saasam ci kenn du kenn du sama diggante moom yenn saasam yëpp moo ma ko joxal boppam ngir barik liggéey bu ma koy liggéeyal waaye suñu bon defal ma alxuraan ak alislaam muy muy ay ndénkaante man mu dénk ma alxuraan dénk ma lislaam daan lii ma wax na yàlla ko seeral kon boo tont tontu ba ba tontu jeex amul lenn loo xam ne da koo koo tënk ci ci genn wet waaye lépp da ko yaat ci lislaam kon mooy lislaam rek la woote maa li wax ci njël bi ni gi ne dafa ñëwoon ngir yeesal sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sunna soosu nag ci ñetti yëf la ko yeesale taalif jàngale yare bu dee taalif xam nga fekkoon na fi ay téere yoo xam naka jekk eh, nditi jamonoom ci lañ doon jàng moom ci boppam téere yooyee ca la jànge waaye xam ne xam nañ ne taalifkat bu ne suy taalif am réewam lay taalifal jamonoom lay taalifal aw xeetam lay taalifal kon su fekkee nit ki bokku leen jamono ju ngeen dund ndax téere yi ñu doon jàng ña ko taalifaat nañ ba yàgg yàgg jamono yi yéen doon dund ak jamono bokkut ba bokku leen réew mu ngeen dëkk bokku aw xeet ndax ay naar lañ la ca ëpp kooku su la taalifalee ay téere mën ngeen ma déggante wax te koo jàng xam-xam ñaari jëlaali culture am ndax kuy bind ko nekk culture am da cay feeñ moo tax nga ji na ñaari ku jàng ci tubaab yi ñaari bu ñibbisee la ca ëpp tubaab bu sotti lay doon ka jàng ci naar yi bu ñibbisee ñaari naar bu sotti lay doon mooy dafa jàng xam-xam ba jàllale culture ba mu gisee ko ñim dëkkal ne war nañ la taay fa téere xam dafay dëppoo ak xeet dëppoo seen jamono dëppoo seen seen culture nga xam mën a jàng xam bi xam ko ba noppi sa culture du soppi ko loolu ko yóbbu ci taalif te téere yi fi nekkoon ñu ko jàng yépp téere naar yu jógoon bitim réew la laxdar yu leen daa jàng téereem naar la asmaawi yu téereem naar la bi muxaddimatul isiya téereem naar la risaala téereem naar la ibnu duraydin téereem naar la alfitu ibnu malik xalil maqaama yëpp ay téere naar la woon mu seet nag ya ca am njariñ ci ñu wesar ci ñetti fànn yi ëpp solo muy tawxiid fiq ak tasawuf mu bindaat ca yaatal ca ngir ñu mën caa sukkandiku kon yeesal na lislaam ci taalif ay téere ñaari mooy jàngale Sëriñ Tuubaa musta bàyyi jàngale diiru jamonoom ku ne xam na ne jàngale la njaal lu jiitu yoonu murit si mu doon mi waajuram daara ju rëy la yoroon ñu daa fa jàng fànni xam-xam yëpp gannaaw sëñ Mor moo doon daara ji yor ko ni ko sëñ Mor yor yoon di jàngale xam-xam di jàngale fànn yëpp am at rek la ko yor nag ni ko sëñ Mor yor yoon ci biir at mi nag dénkaane na daara ji tukki tukki yoo xam ne da doon rëw da doon wër ci biir réew mi di wër borom xam-xam mboolem borom xam-xam yi moo xam borom xam-xam yi zahir wala borom xam-xam yi baatin ñëpp wër na leen bañ daj ña ca faatu mu dem ci seen bàmmeel siyaar leen dem gànnaar defe ko noonu delsi ca lay wax ne fa jultu bayna al ulama wala awliya bi ndee sa daal jëlaat daal jorlaat ko ba fu ñaari lu tollook ñeenti weer ca nag jor door jot ndigal ci boromam mu jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko rabbi ashaabaka bil himmati na nga tërbiya sa mbooloo ci pësteef muy ci yitte ju kawe waaye loolu nag taxu ko woon a bàyyi jàngale ndax bi mu nekkee gànnaar ak jolof yëpp ñim daa taxool daana leen yi mu talif bi mu ñëwee njaareem bam xat jot gi musta am jot waaye gën naa xat mu soppi njàngale mi ci ay tomb daan jàngal ci ay tomb ak i rëdd daa ko leer ci wolof yi leer nañ ñi kon da daa soppi méthode bi muy jàngale waaye musta bàyyi jàngale kon yeesal na lislaam ci fànn jàngale ñetteel mooy tërbiye nga xam ne li ëpp ci liggéeyam ci la ko def ndax bi ko yoon jox tudd gi mu ko tudd baat tarbiya nag ci liggéeyam ñu jëmale ko ci tarbiya nag mooy ngay takkook nit ki di jaxasoog moom guddeeg bëccëg di dind ay bon bonam di ca def say baax baax soo demee ba bon bon ya ngay seppi ci moom sedd wicc la ngay def ci moom ci baax fees ko insaan kaamil ngoog day daal di ma sëkk lañ ko doon day daal nekk mu murid saadiq bu mel na war a mel da doon defar seen se tàggat seen yaram ci di leen liggéeyloo di yar seeni bakkan ci di leen xiifal den teg ay coono yu metti waaye tam di yar seeni xol bu dee ca gëm yàlla gu gu mu sëkk ak ak jëf gu ànd ak di yar seeni xel yi tam ci xam-xam mooy den den jàngal xam-xam alxuraan ak xam-xam bu am njariñ mu ne suñu mbàkk bi soon wax ne wal xawsu wal miqyaasu rabba qulubana wa ajsamana fulkul fulkulu saafin wa naim moom ci boppam mu dem ba sant yàlla ci taalibe yooyu yi nga xam ne ñoom la doon defal ndax lam ci bëgg am na ko mu sant ca yàlla li yanqaada an jaabun bi bil muna wa ma xaqani an shukri mawlaay asbaabu may sant sama borom mi nga xam ne moom wamatal tànneef yoo xam maa leen ba ñu jag ba lañ bëggoon lépp ñu am ko kon benn sabab bu dox sama digg sant yàlla kafaani xafidun maaniun jumlatal ida wali qaada ahbaban bihim udhiru nuska sama borom mi aaraka musle moo fegal samay noon ba noppi wammatal ma soppe yoo xam ne maa leen defar ba boole ne jàkk xam ne jaamukati yàlla piir ngi nii ndax murid ya ko toppoon dafa defar seeni xol defar seeni roox sellal seeni bakkan bañ mujj mel ni yoo xam ne dañ leen tëggal bañ nekk ay wurus doon ay kaadar yu mel nañ war a mel ndax bi ñu doon tàmbali liggéey bi doon da doon formé ay kaadar ndax boo xam ne jot gi mu am dana ko ma a ñàkk fexe former cadre yoo xam su demee ba ñàkk jot ñooñu mën ko wuti ci li mu doon def muy tarbiya gi ku mel ni Cheikh Issa Dieng Cheikh Massamba Diop Sam Cheikh Issa Dieng Cheikh Ibra Fall euh, Cheikh Massamba Diop Sam ila axiri yi mu ne su leen lim mu defar ñoo xam nag bi ba nga xam nag euh, dugg na ci loxo tubaab yi mu tasaari mbooloo mi ci ñooña loolu muy indi seexal coono seexal mooy def na defar na la ba nga jeg mbooloo ak mbooloo ngir lu baax la mu def ci nga def ko ca mbooloo ma nga xam ne euh, ñi njëkk a formé ño ci ñoom la doon sant yàlla ci ñoom am murit nu muy mel nag sëñ Baye daf na ko tënkal ci tënk bu gàtt daf nu ko tënkal ci ay bayit leer ak ba mu leer nañ ndaxam ab murit saa su bëggee lu dul ndigal ak ngërëm dootu benn murit murit dëgg yombul la yom may nga wax ne man ab murit laa tuddoo ab murit ku tàggoogul ak soxla kay du murit ka tàggoo ki soxlaa di nga jëm murit xabal sab sëriñ teg ci sab xol xalam ba far say soxla lii dig murit murit bub sëriñ dul tuxoo fi xolam du am soxla yàlla naa di boobee murit yëgalkat ne doon yaa ne ak dex lemel te nag ab sëriñ moo di gaalug murit ndagam nag sëriñ moo di gaalug murit moyul génn jëm fenn yow kuy murit ku génnul du lab mukk kuy génn lab akay leb tey yaar yàqu murit bon ba ca kanam a kanam mu ne joxal sab sëriñ sag jur ak sab xolit te bul wax bul wax li lay dégg murit lu dul maa ngi nii as ceddi yaa ngi nii bu koy wax bu koy wax li lay dégg murit dem ba ci biir mu ne mu kàllaf dafa xamal xamal yow ne ab sang day sang nit te doo gis mu sangit ko deewul murit mu kàllaf mu deewul ku koy sang mooy te ab sang mooy til yëgal lii murit li tax ku tudd murit yomba gis te te gis ku tudd murit tey murit murit dëgg day dee te deewul xasal li day metti metti jotul ak murit amaanaa nga gis waaju tëb daal di dee te doo gis ku tëb daal def ab murit mu teg ñaari baytu yoo mat a bàyyi xel nag gisal waaye ngiy jóg di daw ci murit ba ay murit nag te murit gisal kii jóg di daw ci murit ba dundam nga farjee murit ak murit kon ak murit yombut Cheikh Mamadou Fadil nag daf ko jëmmaloon doomi Sëñ Tuubaa waaye mos sa bëgg a doon lu ab taalibe ñu ñëpp dégg nañ ay kàddoom mu wax ne duma doom ju bëgg a donn baayam duma taalibi bu bëgg a seex dama bëgg nekk ci biir sëñ Tuubaa rek ku ne xam na ne ñoom ñooy ñi njëkk a jébal sëñ Tuubaa seen bopp tey ay doomam ñëpp ñëpp xam nañ xas ba ca jolof ba mu jébaloo ak bay di mu ko firndaale firndeele eh, yaayu sayxu sayxu nafisu murtaja yaa faate maakaan xal murtaja bi waxtu bu nu yati bil iraada lakum li kay ahda bi xarxi aada min baadi mastaritumooha min ni ahdayto lakum bi xayri man ni faltaqbaluha yaa malaadu karama la ziltuma bayna bara yaa alama bi jaahi maxdumikum fadli xayral awaaxir maan wal uwali yow sëriñ bi nga xam ne yow sëriñ bu sell bi sëriñ bi ñu yaakaar yow mi nga xam ne bunte yàlla ya tëju woon yëpp ci la tëju ko maa ngi lay yëgal ne njureel yéem a jur jaay naa la ko gannaaw bu ma la ko jaay na njëg gi ci war a bàyyi ko nga jox ma ko njëg googu defal na ko hadiya nga xam noonu la joxe mbiram Sëñ Tuubaa mus sa bëgg a doon lu tali bi Sëñ Tuubaa te moom la doon firndeel ci ay doxinam ak i waxin xam nga ni nga xamee ne ko lu ko lu ko waaye masa naxi Sëñ mu nangu donte wóor na ko li ngay wax du dëgg waaye tudd nga ci Sëriñ Tuubaa rek la koy wax da koy nangu ndax day am day xam ay na xam di ca tàbbi lim ngeen bëgg Sëriñ Tuubaa loolu la ko gën a findeel ci laay jeexale ci laay ci laay jeexale euh, nee na bis dafa am ku ko fekk dafa am ku jaaj ku ñëw ci Sëriñ Tuubaa xam naa doon doon doon doon doon ni ndimbal Sëriñ Tuubaa yebal ko ci Sëriñ Fallu ne ko demal ne ko sàq moomee na la ko jox ne sëñ Fall neen bi ma ko gisee waa ji ni ma ko gisee ci ci saaxiram daal niruwuma ko mën a gis sax sëñ Tuubaa tax daal wóoluma ko waaye teewut teewut nag du tee lam lam lam lam lam def ma fasoo ko rek fekk na boobu maa ngi waaj jëm jëm jaariyam seet ji sëñ def def ko def li sëñ Tuubaa wax ba ma àggee ci sëñ sëñ sëñ bi sëñ bi ne ma ndax gis nga sama ndaw la mu ne ko ndaw la mu ne ko ka doon distaande mbir mu ne ko ah kon yaa ko yebal mu ne fal li defoon naa ne ku leen nax ci man ngeen nangu daane man di rasulullahi ku ma ci nax ma nangu ca la doxe ne la ko waaye mas neeti sëñ Tuubaa donte wóor na ko ni li nga wax amut it da koy def xam sëñ Abdou Fatah mi bari na lu muy nattali ñaari doomi soxna yi ñëwoon kenn ku ñu jóge fi bari ne ko ñun kat dañoo génn bi ku ne daa gént sëñ kii ne fi kii ne ñu gént sëñ Tuubaa ne na ku yeen na nga ci sëñ Fallu mu jox la nàngam kenn ku nekk mu wàññi la boo xam jox la ba bañ jóg dem man leen xee ñu gees man leen gis leen kenn kat kon danaa xam ay na xam ba na fi nangu caataab lépp mooy bàyyee gum bàyyee bopp Sëriñ Tuubaa ak jox gum ko jox léppam euh, daa sàkk ngërëmam itam ci ci moom di ko sàkk itam ci ñi bokk ñi nga xam ne bokk ñu Sëriñ Tuubaa kenn ku nekk daa sàkku Sëriñ Tuubaa ci yow euh, war maal ko ba ba di ak ci turu borom borom baraag beeg ku baaxee ku tedd ki la wax kon ñu war a roy ci moom ak taalibe ñu ngi lu baax a baax de ñu ngi xamal xamal ne waxtu yi jeex na yàlla na yàlla bool dimbale bool defal tawfiq xiir nu ci ak njub te saxal nu ci te def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa nangu nu suñu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.